bañ taxawalee li nga xamante ni mooy aéroport international Blaise Diagne bi fële ca Kër Moussa ni ngi dund lu métti métti li ci gën a fës mooy jafe-jafe suuf yi nga xamante ni nemmeeku nan ko ci gox boobule. pour lan commune Kër Moussa ñi fi dëkk mënuñu jariñoo seeni suuf ñeneen di ñëw di jariñoo di bénéficier wu ay hectares yi ci loo xam ne kenn xamul lu mu doon. kuréel ki nga xamante ni moom la ñuy wax sàmm sa moomeel. ñi ngi sàkku ci ki nga xamante ni mooy état bu Sénégal mu jàppale leen ci quinze hectares yi nga xamante ni di conseil municipal ba jël na ko jox ko entreprise bii di Apix ñu toog ba le 30 mars ñu jot benn délibération boo xam ne mairie Kër Moussa daf ko def ñu ne Apix jox nañ ko surface su quinze hectares ci loolu nag la population de Soun principalement sont les plus impactés dañuy laaj li ñu moom nañ leen ko delloo li ñu jox état du Sénégal ci wàllu suuf bu ñu état joxul gët ñun war nañu mën a taxaw wax état ne état doy na rax si dool li liggéeyu teer bi nga xamante ni mooy jógee ba jam ñaajo dem ba ay AIBD yokk na xar mi karaw ndax foofu ca Kër Moussa nemmeekuwuñ fa benn arrêt boo xamante ni train bi dina fa taxaw wala bokk pont boo xamante ni nit ñi dinañ fa mën a jàll te duñ am benn jafe-jafe lu doy ne projet bu mel nii boo koy def wàccal nga rencontrer la population wax ko li nga bëgg population bi mën la wax ñoom li ñu bëgg mais malheureusement yooyu yëpp amul. li ñu jot a am akas néew ñu ngi koy nanguwaat suñu loxo di ko jox ñeneen. suñuy maam ñoo ko doon xeex suñuy baay di ko xeex tey ñun ñoo koy xeex te am nañ yaakaar ni daan ci am ndam. leneen li nga xamante ni bi ni waa mooy wàllum ndox wàllum courant wér-gu-yaram njàng meeg njàngale mi ak xëyu ndaw yi loolu lépp. manqué na foofu jëkkër Kër loolu moo waral ña nga xamante ni ñoo fay yewoo di sàkku ci nga xamante ni mooy président bu yees bi di Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu gën leen jàppale boobule commune